son yi tey loo indi. Adja tey euh, li ñu indi mooy euh, Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye nag kenn la ci ñi nga xam dañuy ànd ak Ousmane Sonko di ko jàppale ci wàllu politique arrestation nag mi ngi jógee ci ab poste bu mu def wax ci ay wax xam naa jombul moodu bu fekkee ni post bi jege na ko euh, li kii de waa mi ngi noon poste baa ngi noonu kon jomb li nga xam ne moom la mbay peex doon wax rek naan mënuma ko wax waaye ku ma ko waxal ma jël. Euh, post bii nag mooy li sababu mu daal di koy ñu daal di koy arrêté ba mu ko defee nag Ousmane Sonko ci boppam reprendre na même post bi wax li mu wax waaye sànq bi may commencé bu ma nee lu tax dégguñu ndigalu Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko sortie bi mujj ci hôpital ba bi muy jeexal dafa wax ay wax daan ay ñooñam nañu moytu yenn poste ak yenn publication yi nga xam ne daf leen di indil jafe-jafe ndax xeex bi fi mu jëm mën naa am bu ñu jàppee ñooñam ñëpp peut-être dina am lu mu sooxeel ci biir loolu nag ñu gis nag ñu bëri ay victimes lañu léegi ci ñu ngi ci biir kaso bi li leen ko yóbbee mooy post bu ñu def publication bu ñu def man gis naa koo xam ne statut lañ ko jàppee statut. Hmm. waaw ci ab problème bu amoon boo xam ni daf ma concerné woon waaye gars yi ba ñu enquête ndeke dem na dem boole nañ ci ba ci sax ku post ku statut woon vidéo bi dañ lay convoqué waale. bu ñu demee nag ba Sénégal euh, toll foofu euh, Omar dafay laaj taxaw seetlu kon ndax. Euh, dañuy wax naan Sénégal pays de la teranga waa texte ndax pays de la teranga bi ñu doon wax ndax ña nga fa ba léegi wala liberté bi ñu doon wax ni am nañ ko Sénégal ndax am nañ ko wala itam ñiy bind ak ñiy posté ñoom ñooy ëppal wala ñooy xaabaabal ndax président Sall nag nee na woon kacc kacc gi fi nekkee moom day dakk ndax ñu ngi ciy jël ay mesures Omar. am ne euh, tout d'abord di masawu Bassirou Diomaye Faye mm. waaw euh, parce que yàlla nag euh, bu dogalee nga mës a toog ak nit. Mhm. nga ngeen jote séddoo ay kàddu daa am loo xam ne bu jotee da nga koy seede ci moom. Mhm. maanaam Bassirou Diomaye fay mooy zéro violence. si dëgg la. maanaam moom mhm. boo toogaan ak moom sax da nga naan kii est-ce que ni passif di doxee lay doxee. maanaam ci laaj bi mu ko laaj rek ci nii pour quoi ñi jàpp seen nit ñi ngeen di tekk mën na noo jàpp bu bari jaru ko dem di jëbal sa bopp yoon jaru ko dem di wax sax loolu la jàppee jaru ko man hmm. baat boobu man jomaay wax na wax na ko waaw ok même woote yi ñuy woote ci mbedd sax boo xoolee da am beaucoup de réserve yaa ngi gis bi ñu ko invité salon d'honneur hmm. nee na sax am na ñu may reproché ni pourquoi doo génn pourquoi doo manifester pourquoi ceci ou cela te liggéey bi du rek génn wala manifester wala wax naka su dul noonu wala dara. Hmm. loolu tax ma jàpp ni jomaay korog boo xoolee même bi ñu koy jàpp boo xoolee vidéo bi ci Dakar matin. Euh, impôt et domaine ñu koy yóbbu boo xoolee ay awkaam ñu ne ko 22 heures boo amul mandat dara wala mandat domaine waroo dem bu la neexee bañ. Hmm. mais dafa ne lii convocation kasal man damay dem. Hmm. mun naa mun na noo jarul violence jarul fitna. Hmm. parce que loolu man mun naa ko seede ci moom maanaam. daraay violence. nekkul ci moom nekkul ci moom. maanaam nit ku dal ku tey ji nga noonu muy waxee noonu la mel. loolu tax man bi ñu ko jàppee xaw na ma metti parce que dama ne même procureur wala juge bu jàkkaarloog jomaay moo sañoon ñu bàyyi ko mu dem ci njabootam yor ay xale yu tuuti nag tuuti galaxtaan waaw nga téye ko day des fois day metti mhm. loolu da deew sànq bi may nuyoo ma tudd Assane Diouf tudd ñu bari fet day neex nga toog rek sa njaboot toog loolu nag ñi jàppaate aussi tey heure bu ñu toogee di lekk wala ñuy naan mhm. nan xalaat ñoom ñi jàpp te nekk ci kaso bi doon am njaboot des fois aussi di xalaatee noonu day tax nga am yërmande tuuti maanaam bul yem rek ci xalaat sa bopp juge bi ko def wala procureur bi mi ngay toog ñi mu jàpp te du ñu Mhm. kon waxuma bu ñu jàpp kenn mais warul oyof à ce point. léegi nag liberté d'expression bu ñu ko bëggee rey Sénégal parce que dana nit ki bu amee lu ko naqadi. Mhm. da ko war a wax ci kàddu. waaw bu ko mënul wax ci kàddu mu bind ko. Mhm. bu ko mënul bind mu egg egg ba ci diine sax dañuy am na fu ñuy wax ci booy xeex ci xeex parce que yàcc nag moom ku ko def ñëpp la mën. mais jomaay ci bind la ko defee ak lu mën a bind mais yëg-yëgam la. mais man des fois dañ naan appel en l' insurrection trouble à l'ordre public. Mm-hmm. man loolu bu ñu ko waxee damay tiit pour man sénégalais yi am ñi koy wax dañoo xaw xeeb sénégalais ci xel. mais ma nga gis benn sénégalais bu bind ba sénégalais yi jug di reyante. déedéet. wala benn sénégalais bu ñëw bind li mu xalaat. ba tax ab magistrat génn ci mbedd mi nit ñi di ko dog di ko sànni xeer wala di ko ñàkkee teggin. mën mhm. nga gis magistrat bu ñu dab ci mbedd mi wala nit ñi dem songu këram. Mhm. amul. peut-être ñoom ñoo gëm lool mais sénégalais yi wegg nañu seen kilifa weggu toll nii du benn bind ji Bassirou Diomaye Faye ci procès bi Sonko war a dem. Mhm. mu bind ko ci français boo xam ne toog bu kawe parce que tamit niveau bi bu kawe lu ko bind. mais boo koy tekk ci olof mun si ci ni mu ko bindee. Mhm. mais boo koy lire ci français ki comprendre français bu baax. Mhm. moom mun na ko tolérer. mais man dama bëgg ñuy dem ak beaucoup de tolérance te xam ne. Euh, des fois borom gémmiñ gi nag du wax jàmm. Mhm. Pastef li leen di teg dafa métti bu ne la coordonnateur bi jàpp nañ ko. ñu ni la ki yor nemmeeku tut jàpp nañ ko maanaam ku yor wàllu sécurité bi tey jii mi ngi ci kanamu yoon communication maanaam loolu day dem ba day métti ci xol maanaam. kenn desatul Birame Souleye mi ngi koy wax ci suba. waaw maanaam kenn desatul maanaam tey li wër Ousmane Sonko bu dul Birame Souleye. Mhm. amatul benn kilifa boo xam ne amlantewul ak yoon te ay Birame Souleye sax du ñàkk moog Abbas li nekk député moo tax. Mhm. yoon mënul teg ci loxo ci ñoom. mais amul kenn koo xam ne yaa ngi ci entourage Ousmane Sonko te amlantewoo ak yoon. loolu daal jomaay mhm. nag bi muy bind ak procès bi ni ko gaawaloon too peut-être en intellectuel ñoo bind ak xol bu jeex. mën na jurul lu toll noonu. d'accord mais bu ñu demee ba egg ni jàpp ni jubluwu ci dara parce que bu ñu nee trouble à l'ordre public wala ñu ne da doon lii ni te boo xoolee tey jii man ne mosuma gis ku bind ci réew mi ba réew mi yëngatu. d'accord loolu tax pour man gars yi il faut ñu dem ak beaucoup de pédagogie demee ak xel bañ di demee ak xol ñi ci kaso bi ñi ci mën a bàyyi ñu bàyyi leen te xam ne liberté de nit ki bu munul wax munul bind kon kaso ba rek mooy cëram macha allah parce que nit il faut que mu bind il faut que mu wax même tey jii déggoo ñu naan nit mun nga ko tëj mais nit xelam sax mënoo ko tëj nit ñi dañuy dem ba ci biir kaso yi di bind ay message di yónnee nit ñi président te nga baal ma ñi ngi dem julli it président Macky Sall dañ fi jiñ Aliou Sall junni milliard li lay wane mbokk dafa fort Macky Sall génn ci grande mosquée bi mu génnee jour boobu war a jégalu ak baalu Sénégal yi dafa taxaw défendre rakkam na sama rakk la parce que boobu liñ jëñ Aliou Sall dafa diis moom mi dem ba yëg ni rakk toll na ko foofu waaye na xam ne mooy bàyyi réew mi c'est le père de la nation ñi mu tëj ñëpp ay njabootam lan tamit bu mu jàpp ni Aliou Sall rek mooy njabootam nan bàyyi gaa yi nu dem korité ji seen kër jomaay ku baax la man dama ko man dama togg ak moom mais ku baax la ku lii nekkul ci li nga koy woon yi nekku ci d'accord waaw jërëjëf Omar bu ci xajee rek ñu ñëwaat euh, Souka wax ki wax na ko léegi Birame Souleye sax ci suba ñu ngi ciy waxtaan moom it euh, nee na président Sall na yaatal kaso yi te continuer am jàppam su fekkee ni mën na ko mais itam bu ñu sukkandikoo ci ñuy bind itam. Mhm. def naa ku ñu bind am na loo def ba tax ñu daal lay woo. ndax jarul kon su fekkee dañu nekk ci réew moo xam ne ku wax ñu fàdd la. Mhm. ñuy bind it ñu war xool li ñuy bind. waaw loolu sànq rek euh, maa ngi ciy waxtaan ak Mange dafa am foo xam ni borom borom borom takk mm. borom baatu neen kilifa am na yenn kilifa yoo xam ne booy wax ak ñoom day metti ci seen côté ba am na loo xam ne duñu ko gérer. Mhm. li nga wax ci Bassirou Diomaye léegi dafa kii parce que li nga wax dafa fort yow Omar danga ni war na war na nañoo dem ci seen njaboot est-ce loolu xam nañ ko lu toll ni it. Mhm. nga war a toog ak sa njaboot ñu téye leen. Oh, waa loolu dafa metti parce que doo xam mais ñoom ñooñu est-ce que xalaat nañ loolu xam nga yow yaa ngi wax loolu parce que yow li nga xalaat ni lii metti na. ni lii war noo mën a toog ànd nekk en famille ñoom xalaatuñu loolu donc mënuñ ci dara Diomaye Faye da koy gis xam ne nit ku sedd la ci kanamam donc tamit Ousmane Sonko mi nga xam ne moom mooy kii wax na leen ni leen am na yoo xam ne bu leen ko bind pourtant wax na leen ko wax na leen ni am na loo xam ne bu nekkee ci boo nekkee ci xeex boo nekkee ci yoon am na yu bari yoo xam ne bu ci dugg dañ lay yàqal kon donc bu ma sañoon euh, président Macky li li kii wax rek dafa am ñoo xam ne da leen di dimbali dana leen war a dimbali bàyyi leen Ousmane Sonko xool temps yi ni mu ne tekk moo tax bëgguma kenn yëngal ko xam nga wallaay Azim day metti ci xol xam nga ndax lan Omar Ousmane Sonko dafa am ñoo xam dañ koo bëgg te yàlla rek tax bu nekkee ci fitna dañuy nekk ci fitna xoola temps yi ni mu ne tekk ñëpp ni tekk donc tekkaaral boobu buñ ko ñoppati nan ko bàyyi kon donc. ñoppati fii ñu ko nga naan ñoppati déedéet gàjj bu nu waa bu ñu ko. nan bàyyi waat mu sedd tuuti. mais fi mu ne nii nii nii daal dal na fi mu ne daal dal gi nii dal gi sedd geeg lii yëpp nan nu bàyyi daal wax dëgg yàlla sonn nañ trop ci lii ñu nekkee ñun xaw fu nu jëm sérieusement ci jàmm rek insha allah ma jigéen mi ngi noonu Ousmane Sonko ñi ko waroon ñu ci bari ay mampaate gaa yi ko daan sinabal sinabaram yu ci bari ñu ngi ci biir kaso bi ñu ci bari daal ñu ngi ci biir boo leen xoolee nag mbiru internet li leen yóbbu ci la bokk maa ngi xoo fàttaliku Diop Taïf moom li mu doon def mooy filmer te la mu doon filmer def naa ba duggoon ci internet bi nga tàppe ko nga gis ay rëbës yu bëri ñu yu ñu vidéo mm. moom lañ leen ko téye ba léegi moom it génnagul ndax jomaay li mu def jaroon nañu jàpp ko parce que Ousmane it reprendre nañ ko bi ñu jàpp bi mu jàppee Basirou. <laughs> waaw sooy bu man de wax dëgg yàlla ki démb rek laay toog di seetaan ndeysaan uh, waa Njëge ñaaw il paraît que Njëge la dëkk am na sax. Uh, mooy fi indi ñaaw. Ndiaga Ndiaye mooy fan. <laughs> demoon na fa. mooy fee mbokki ba ñaaw côté la yoonu Mbour. foofu la idi demoon dem na kay ba ba diggee fa ay diggee. bokkam bokkam bi nag waaye dinaa ñaan président Sall. <laughs> voilà ah, ah, ah, mbokkam yi daal di euh, dajaloo foofu yëpp mais euh, ñoom ñëpp benn kàddu bi lañ seede si moom mooy que ni nit ku dal la. nit ku ku teey la nit ku ku ku ku ku jox cër mag mag yi yëpp wax na ñu waxal ko ko fa maa ngi am na sama mbokk yu ma dendal sax ñoom seeni ay mbokk lañ wàññi. njege ñaaw lañ gis naa leen ñu ñu ñu koy ñu koy ñu koy posté waat euh, ku ci mel ni Fallou Ndong moom mooy directeur u cabinet bu Thiès Ouest su ka mhm. Ousmane Diagne mhm. seen mbokk la mu posté ko wax si moom wax ju rafet mais nag bu ñu jugee si mbirum poste bi man keroog laa ko liir mais man su may certes bind ak ak ak ak wax sax am na tuuti différence parce que ki bind moom ku demul lii rek doo ko mën a jot mais ki wax ñëpp dégg moom moo gën a garaaw li fuuf mhm. te da gis ñoo xamante ni fii insulter ay ay ay ay kilifa ak ay ñoo xamante ay responsable lañ nit ñi topp seen ginnaaw ñuy taxaw di wax ne Euh, bu deewee ñu doon ay ay jabaram loolu lan moo ko gën a ñaw son yi bu ok nit ah? toog voilà am ku ne yaayam bu bu deewee est-ce que yaayam dina juraat xam nga loolu aussi insulte gënu koo gënu koo gënu koo metti ku euh, ma si gën a yëpp laay tudd turam muy euh, Ahmed Suzanne Camara fii la toog si plateau télé ne carrément nañu dem taal kër diw hmm. te kii daf ne dafa xool li nga xamante ne nii moom moo ko naqari cri de cœur Hamasuka ak Oma bu ñu bu ñu waxee ne Ousmane Sonko sax nee na bëggatuñu sax ñuy posté mais am na am na ñoo xamante ne seen xol dina naqari naqari boo xamante ne bu ñu ko génnewul rek du baax si ñoom moo tax parfois cri de cœur yooyu nit yi mën nañ leen koy nangul gis nga Macron mi nga xam ne ñun nii sax bëgguñu ni muy doxalee ak euh, suñu président beek nit ñuy def Sénégal mais dafay taxaw mu gis ay ñoo xamante ni waa dëkkam la ñu taxaw insulté ko mm-hmm. mu reetaan leen jàll nit ku mën a supporter loolu yow nga nekk ci bu réew. waa mi ngi noonu loolu laay eh, comparaison boobu laay lay laay def lépp luñ la mën a waxal rek nangu ko parce que xam nga ni yow la yàlla teg ci kaw bu la yàlla tegul woon ci kaw wala nga am sañ-sañ boo xamante ne nii yàlla mayu la ko kenn du la tudd. Mhm. moo tax donc il faut ñuy yemale gis nga justice bii ñu jël def ko ku ma am ndey ku ma amul ndey moo jaaduwul son yi bu nañu waxante dëgg booy wax sa sukaa di tii di la wax maa jigéen nii nangam mais il faut ñu mhm. wax ñu wax li nga xamante ne nii moom moo fi ne. da nga wax rek mooy. li ñuy kaso voilà am na ñuy wax lu ko gisoo Fadilou Keita ngi nii euh, Omar euh, euh, moom xama question la posé te pourtant Omar Suzanne Camara dafa toog si télé bi ne xam naa ñi def jëf jooju mm. lan moo tax jëliwuñu ko ñu jàpp ki nga xamante ne nii il a posé tout simplement de questions ñu fekk ko fi mu nekk ji boobu ba tay mi ngi ci kaso bi yaa dëgg la ayca mi ngi noonu kon Betty mu mel ni des fois wax dana yóbbu nit kaso waaye des fois bind yóbbu nit kaso jomaay ci la bokk post bi moo ko jural lii waaw moo ko jural lii man sax euh, poste bi tuuti laa ci liiroon moo taxoon sax ma demandé waat régie ñu indiwaat ko. Mhm. en fait mar a ngi naan français bu diis Diomaye bindul français bu diis français rek la bind sujet verbe complément. Mhm. et puis c'est facile à comprendre aussi. Mhm. man man boog personnellement man du ma wax lu ma gëmul. si muy télé hors télé. mais li ma gis nii mu bind moom dara nekk ci. dara lu méchant nekku ci. Mhm. wax dëgg yàlla. damay wax rek sama akulaay taala gisuma ci dara lu méchant gisuma ci dara lu jaru woon nit non xaw ma man mën naa ko ci bañ a gis. invité tooñ na président Sall ci affaire colin mm, par rapport ak Sonko ñu ne peut-être. ah non ko def loolu du ko <laughs> mën na mën na mën mën naa ci bañ a gis dara. Mhm. xëy na ñoom ñi ko gis nañ ci dara. exactement loolu laa wax mais man damaa paax personnel. Mhm. gisuma ci dara lu grave. Mhm. wax dëgg yàlla français la bind sujet ba complément. amul dara lu compliqué. amul dara aussi benn baat aussi boo xam ne baat bu déplacé la. wax dëgg yàlla. nit aussi booy wax da ngay wax li nga gëm. loolu mooy dëgg d'après témoignage yi ma dégg ci moom nit la bu amul benn problème nit la bu sedd mhm. gis naa ko ci salon d'honneur man gis naa ko sax ci bi ñuy sunu rassemblement yi ñu fi woote woon ak yooyu mhm. c'est vrai que dama ko gis nii mais mënuma juger ci loolu mais d'après li nit ñi wax ci moom nit ku baax la nit ku ñàkk bracelet bi El Malick oh waaye tamit nag mhm. waaw du ñàkk tey xëy na bu bu maître ngañ Demba Touré ñëwee xëy na moom it dina am lu mu ci xam mu gën ñu cee leeral moom lañu ñu invité tey ci salon d'honneur mhm. Mhm. waaw mhm. sëriñ Fallou sëriñ Soukaar a doon wax def na ko munul muñal ay bang-bangam matoo ko kilifa waaw ji nga kilifa day yaatu dënn ji nga tey ji xoola ji nga mi juge di procureur di Macky Sall di ministre di premier ministre di Marième Faye Sall fi ñu toll rek moo tax ñu wax ci ñoom. waa dëgg la. di nga ku doonul dara doo dégg dara. Abdoulaye Wade kenn waxatul ci moom. voilà ku doonul dara doo dégg dara di nga ñoom fi leen teg il faut ñu xajoo xam ne doole du pour dóoree du pour jàppee du pour xeex mais doole pour yërmande la pour pour di dimbalante. Mhm. doole loolu rek lay jariñ ba fi leen teg il faut que ñu ñu mën a ah, xajoo mais ay non ma wax la benn affaire di nga ma wax la benn article 80 ñëw taxaw. voilà mm. Ablaye Wade ci jaag lañ ko teg naan góor yu suul na de nañ ko. Euh, mm. euh, euh, ci jaag. waaw ah. lañ ko teg ji nga ci jamonoy Ablaye Wade man di may wax nii xanaa manifestation dana am ñu jóge ñu juge oxygène def ay manifest def kii nekk ci terrain bi nii di def reportage mu seen jàpp Youssou Touré jàppale ma moom. mais gars bu la dugalee ci oto bi ba daw tuut da lay wàccee na la yow yi sa yoon nekku ci dama la def sa liggéey nga wàcc daw maanaam da ngay sentir benn baax bu gendarme yi wala policier doon baax. yu Touré ji nga bu demee ba guddi gi dalay lay woon na la booy tapet nga gars yi lii la nga daw nga bàyyi ma ci oto bi mais moom sax du fa fanaan mhm. ci jamonoy Ablaye Wade man yooyu laa doon gis jàpp gi day bari mais gars yi amul fay fanaan wala ku mu tombeek week-end bu lëndee nga ñibbi doo jonoo sax ak procureur wala dara mhm. mais tey jii bariwul ku ñuy woo nga ñibbiwaat sa kër vraiment alors que dañ ne la liberté mooy la règle mais la prison mais exception la war a doon mhm. maanaam liberté moo war a doon règle bi si mais prison lu new la war a doon. mais bariwul ku ñuy woo tey jii. seen jot njopp ni mun ngaa ñibbi war sa kër. moom sursi kay sursi moom bari na ñi ñu woo ñëpp benn sursi wala euh, kii nu ñu koy waxatee mandat dépôt. mais set nga set total ñu bàyyi la nga set. waaw bàyyi set il faut que ñu gàll la dara. mais Assane moom lan la def Assane Diouf. Assane Diouf nee na vidéo bu yàgg. daa saaga woon ñu génnewaat waat saaga. <laughs> daa xoromoon. Mm-hmm. en tout cas ni nga ko jëlijee sa dafa ñaaw dañoo civil lu 22h nga dem kot nit ci place liggéeyukaayam ne da nga koy da nga koy. kan la Assane non non moom Jomaay Faye. ni ko jëlee vidéo yi gars yëpp jël nañu une certaine presse aussi tamit ñiy liggéey te xam ne bis dina ñëw lépp luy liggéey suñu borom laajaat leen ko. mënoo rek di bind ci ndey jàmbur bàyyi jàmbur presse bi am na man tey jii am na ñoo dama abonné ci ñoom mais lu xëy boo xëyee rek da ngay gis seeni ligne mais liy taqal nit ak liy tëj nit ak liy tilimal nit rek oh. te pourtant loolu ay journalistes ñoo koy def ñu ngi ci dëkk bi tamit daf ci am loo xam ne di nga liggéey na ko rafetal te di ci jaamu yàlla te xam ne bis day ñëw ñu faatu. d'accord bis day ñëw ñu faatu te suñu borom dina laaj li ñuy def fan lañ ko tegoon ak lu tax ñu ko doon def. d'accord lan bàyyi yi ñuy def. kon mi ngi prison dafa metti ji nga prison dafa metti te Sénégal dañ koy foowee ku dem ñu jàpp tëj dafa yomb trop. gars yi nañu yërëm nit ñi. ay ca te jàppee nit ñi ñi seen njaboot. jërëjëf kenn tëju fi sa doom kenn tëju fi sa baay ni nga jàppee seen ndey ak sa baay jàppee ko ñeneen ñi vraiment jërëjëf Omar jërëjëf Omar jërëjëf euh, ma jigéen Diop jërëjëf euh, Souka Mbaye jërëjëf ajaratu Betty mi may bëgg àndal dem Màkka déwén incha allah ah. incha allah yàlla mën na lu ëpp loolu wala ngi doon kon lii loolu la ñuy euh, wax rek di wax ni ci fukki fan yu mujj yi ñu nekk li ko Omar waxee euh, dañu wax ne itqun minan naari la maanaam goreel nit ci safara hmm. nit ñi goreelee nag ci safara wax dëgg yàlla nag président Sall nag goreel ñi nga xam ni nag seenu bàyyi maanaam duñ trouble à l'ordre public par exemple bàyyi jom jamaay fay mu ñibbi wala xale boobu ñas Lamine ñas te mu naan def ay sensibilisation ci euh, TikTok bi ay mampaate ñu du ñu du ñu ay nit ñu garaaw ci société soo leen mën a jégal jégal leen def naa ne nit ku génn dina am kaso lu mu def ci yow après nga xam ne lii bu ëllëgee dootoo ko def mais jàpp naa ne amul benn nit boo ñu jàpp ci fan yi ku ma yëg koo xam ni bëgg nga Sénégal ñu kos ko ba koy jafal yaakaaruma lool kon nag bu njuumte amee nañ leen baarate jégal leen aywa kon boog Adja ñu gërëm Alaaji Modou Diouf ca kii ba ak euh, tabarkàlla di ko wax ni Modou li nga ma wax léegi dégg naa ko ñu ngi leen di jaajafal bu baax a baax son bu jóob li nga indee te amatina solo di jaajëfal yéen ñi ma bokkaloon plateau bi